démocratie parce que ñëw toog sa askan toog ngay waxtaan ak ñoom ñuy xool li baax ak li nga xamante ni mën nañ ko rectifier yaakaar naa ne kooku ci lu am solo la ci dans une république. waaw mais xam nga Bécaye suñ demee ba fal président de la république jox la lépp yow yaay joxe le bon exemple. lu mhm. dëgg man dama jàpp ni président c'est un démocrate quel soit nag lu jot xew xam y a y a des hauts des bas dans une vie mais Bécaye ma li ma gën a intéressé du question ni sa discours ba wala li xew ak li ñàkk xew ma dam fi toogal askan bi surtout jeunesse bi mhm. ah parce que am nañ yaakaar ci jox nañ ma wax nañ ma seen ay préoccupations mhm. donc su ma amee par exemple la présence d'un ministre euh, Zator mbay dama am sama ay question yoo nga xam ne dama bëgg aussi mu tontu ma ci pour mu leer ci bopp askan bi mhm. léegi ma amoon ñaari question yoo nga xam ni rek il faut que ma poser ko ko bon monsieur le ministre dama bëggoon xam rek comment plus plus efficace l'accès au financement des projets des jeunes kooku mooy première question deuxième question bi mooy y a un million de chômeurs au Sénégal est-ce que euh, quatre cent cinquante milliards yi ngi président Macky Sall promettre ah jël en charge euh, xam nga euh, c'est un million de chômeurs mën naa tontu xaaj ba kay. Ah, tontu ko ah, ah kay. accès au financement bi euh, naka lay gën a efficace. Ah. loolu le président indi démb comme ay tontu. cest à maintenant au niveau des départements dañuy décentraliser service yi nga xam ne woon ku soxla woon DER da ngay ñëw Dakar ku soxla woon FONGIP da ngay ñëw dakaar ku soxla woon euh, ANPEJ da ngay ñëw dakaar ñu ne léegi dañ koy dajale ci benn gox ki nga xamante ne nii moo lay defaral sa dossier muy APIX daf fay nekk defal la sa dossier ca saasa ñu daal di jël ki nga xam ne peut-être moo lay garantir muy FONGIP dafay nekk ak ki nga xam ne moom moo lay financé ñu génne li nga xam ne bu fekkente ne ton projet est bancable gars yi jox la nga daal di dox. leneen li mooy un million de chômeurs xam nga man Sénégal on a un problème de chiffre des fois. Mm. ci affaire chômeur. chômeur chacun se dit chômeur chômeur dafa am définition. bien sûr da ngay am métier. wala nga am liggéey ñàkk ko. Mm. su boobaa nga nekk chômeur mais ñu bëri mag ñoo ma yem. koo mhm. ci dee lan nga mën mën a la loo ma jox. loo ma jox baax na. ah xam nga loolu tam ça pose problème looloo tax président indi lii nga xam ne indi na ko muy cinq mille emplois yi nga xam ne euh, voilà laajul benn qualification xëy na danañ leen jël former leen jël dugal leen utal leen ay solde ñooñu ay solde lañ leen di jox kenn bokk ak ñi ñuy financé 65000 yi dañuy am solde ñu leen di fay weer ñu mën a affilier ci ay CME yooyu. mais seen liggéey c'est wala day continuer. non day continuer day continuer day continuer parce que dañ leen di jël maanaam xam nga pavage tey dama lay jox benn exemple dëkk bi xam nga bëri na suuf mhm. tey boo boo jëlee xale yi ku ci nekk fa nga dëkk boo supposons nga ñëw Sacré-Cœur nga jël fa cent jeunes yoo xam ne fa la ñu dëkk mhm. c'est-à-dire ñooñu duñu am problème mu wuti location problème mu wuti lu ñu lekk ndax seen kër la ñu dëkk mhm. fa la ñuy liggéeyee mën na leen jël ci wàllu pavage foofu mën na leen jël ci wàllu reboisement mën na leen jël ci wàllu sécurité mën na leen jël ci métier yooyu nga xam ne incha allah comme li président wax ne ministre yi nañ ko jox euh, euh, tableau synoptique bi au plus tard le 30. ndax mbir mi dafay tàmbali incha allah. ci ci ci mois de ci mois de mai bi. mais jàpp naa ne l' au financement tamit ndax ku nekk def effort. jóg bu fekkee ne yow foog nga ne ci ñu lay fay ci yee moo la gënal nga dem ca yooya. bindu ca ñu jël la. Mhm. su fekkente ne yow da nga jàpp ne ah man kat nañ ma financé cent mille francs ma taxawal sama tànganaa di ci def brochette ak fataaya ak yooyu nga dem foofu ñu financé la parce que ku ci nekk ak li la yàlla may. Mhm. démb am na benn jeune bu am solo bu wax euh, ki nga xam ne dafa nekk si benn plateforme créé docteur foo nekk foo nekk docteur. plateforme bu am solo. c'est-à-dire da ngay toog sa kër sa bopp di metti nga laal ko mu wax la fu docteur nekk. te loolu dafa doon lu am solo ñooñu président wax na ne dina leen jàppale ambulants yi nga xam ne am nañu aussi yenn problème yi mais dinañ leen jàppale mais yow mi jeune tamit yaay def effort jóg dem ca bërëb yooyu bindu. Mm. ndax kenn mosul gis dëkk boo xam ne da lay sa kër ne am. kaay loolu moom amul fenn. amul fenn mais Zator. waaw waaw nga baal. Mm. mais est-ce que yéen jël ngeen en compte les réalités des quatorze régions du Sénégal. nga région bu yow mi yow mi dëkk Ziguinchor. non Dakar. Dakar Paco yow mu dëkk Dakar. xam nga tey bu ma ñëwee ne la dem lay financer pour ngay transformer di tax te fii amul di tax. problème lay doon problème lay doon. mais xam nga yow. mais mais Paco liggéey liggéey bu rentable la. mais bien sûr. mais xam nga Bécaye y' a pas de sot <laughs> loo nga xam ne du sama compétence. du sama compétence <laughs> na ma ne wóor na ma ne ku bëgg jus de di tax la. dama koy naan ak ah, ah, voilà est ah, xam nga ni c' est une loolu dafay créer une plus value c' est à dire day créer valeur ajoutée que ñu fexe ba ki nga xam ne ba nga dëkk ca mango yo mën ko def jus wala mu mën ko def ay mm-hmm. mangue séché mm-hmm. parce que bu ñu demee dëkk yi mais dañuy koy ñoom ñoo koy jël yóbbu transformé indil nu indil nu jaay nu ñu naan <laughs> waaw war nañ ko mën a transformé fii sunu réew defar ko fii ah. jaay ko fii ñu am am ci benn chaîne de voilà yaa ngi ñu ngi wax ci jeunesse beeg seen yëngoog yooyu président de la République wax na ak étudiants yi naka yeer comportement yi nga xamante ne ni moo leen war comportement yi nga xamante ni mooy tax ñu comprendre li nga xam ne moo di seen ëllëg